sargal waaye tamit di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne ya nuyu su nekk nee naa leen nii lay demee ci seen journal de l'arène lépp loo xam ne rek jóge na ci làmb ji dinañ toog fii daal di leen ko faram fàccal ma ci ànd ak ki nga xam ne rek moo di Babacar Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Ami. ci loo nekk sant suñu borom. Mm, naka nga fanaanoo. waaw alhamdulilah sant nañu yàlla bu baax a baax yaa ngi am jàmm rek. waaw am nañu di leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm ñoom ñoom tamit di ko sàkku si ñoom rek fu ñu mën a nekk rek leen bëgg saa su ne amin Babacar bu baaxee rek ñu dem seetaani li nga xam ne moo di revue des titres daal di dellusiwaat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 17 février 2021 dañu ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy tey dooreeti ko yëglekaay bi di sunu lamb nag moom tey dafa ñëw ci combat bi nga xam ne ni ñu ngi koy coow a am ci mois de avril maanaam la 4 avril war a dox ci diggante Eumeu mel ni ki nag combat ba ay wax yu sew daal mu nga cay dugg wax ya nag yëglekaay bi xëy na tey toppal ñu ko ka nga xam ne nii nag wala boog ña nga xam ne di daal ñoom ñoo di ñaari mbër ya wala seeni camp boog daa mel ni daal lañuy laaj mooy fi mu nekk nii daal maanaam ñu complété leen seen ay avance maanaam lañ leen jotoon jox daal ñu complété ko mel ni ki nag wax jooja moo jóg ci boobu combat yëglekaay bi di sunu lamb xëy tey toppal ñu loolu waaye dafa mel ni nag wax ja ba mu amee moom ka tëgg combat ba moom di Gaston Mbengue xëy na di tontu wax ja wala muy dalal xel ya la mu xam ne daal nee na ñoom ñëpp daal bu fekkente ne la nga xam ne nii daal li war am maanaam am na maanaam état bi joxe na ndigal maanaam wax leen lamb ji kañ lañ koy def ak naka lay moom nee na su keroogee daal moom li am ba des moom ku ci ne la la nga xam ne war na la kaa jox dana la ko jox ba mu mat sëkk ndax nag jàpp na ne moom fi mu nekk nii lu mu leen jox yàlla dénk na ko ko mu ngi ko denc waaye daal maanaam li ko daloon ci Gris Bordeaux moom lay bañ mu dala lati ko maanaam lu muy joxe daal fi mu nekk nii lu leer nañ naññ lay doon maanaam mbir lay doon doo xam ne daal lu leer naññ lay doon nee na loolu muy wax leer na Mouhamed Ali ma nga xam ne moo yor Lac de Guiers leer na Eumeu Sène nga xam ne tamit moo ko waloon boppam ba ci ka nga xam ne nii moom moo di papaay ba jéen kayre di booy kayre Gaston daal la mu leen xamal daal nee na fi mu nekk nii moom mbir yi tagewul ci moom nee na déeréet nee na loo ci mën a dégg daal mbir yi moom kenn la moo ko yore moo ko tagal bu dee ak tag am na ci mooy état bi na ne daal bis bu waxee moom maanaam daal wax leen lu leer nañ ne na su keroogee moom la mu warloo ak mbër ya dana ko def te dara du ci dañ loolu waxee ka nga xam ne nii moom moo di Gaston Mbengue la mu mel ne kii nag lamb ja nga xam ne nii daal moom la ñuy wax noona wala lambi réew mi wala saison bi nu nekk moom yéex a tardé gi wala boog yéex a commencé gi mu yéex a ki ma commencé ka nga xam ne nii ab promoteur bu bees la ñëw ci lamb ji ren ñu naan ko jimboo moom mer na ca bay futt jimboo daal la mu xamle ne na li nga ki ki mu xëy attaqué daal du kenn ku dul Matar Ba mi nga xam ne moom mooy ministre des sports parce que daa jàpp ne ñoom daal fi mu nekk nii loo ci mën di gis làmb ji ñoom ñoo koy xeex ñoom daal ñoom ñoo bëggul làmb ji parce que nag li mu gis daal ne na lii moom tegewut fenn maanaam daal ñoom la jàpp ne daal ñoom daal la soupçonné autorité yi daal la gis jimboo gis ne daal lu jiin njaak ñoom ñooy njaak ñoom làmb ji bu naree yàqu kenn naru koo yàqu ku dul ñoom ndax nañu taxawoo làmb ji moo dul yoon keneen koo xam ne ni tamit ab entraîneur la nekk fa nga xam ne ni moom moo di ca kaay baax ñu koy wax Ahmed Konaté moom tamit yi Jimbo jooja daa mel ni soriwu ko Ahmed Konaté tamit daal maanaam ne na fi mu nekk nii lii ñu gis nii bu dakkul moom wàcc ci mbedd yi dox dox yi ñaxtu wax wane seen bopp ne na moom dana ci am ndax nag daa jàpp ne fi mu nekk nii moom làmb ji dañ koo bàyyi ci suuf seetaan ko mu nar a suux ba tax na promoteurs yi ñenn ñi ñu ngay daw di wutali Gàmbi te na loolu su yàggee ba yàgg làmb ji day dee Matar ba moom Ahmed Konaté jàpp na ne nekkul koo xam ne ku bëgg làmb la xanaa kay da koy mbuboo dong lool mooy ay waxam moom ma nga xam ne ni moom moo di Ahmed Konaté ba tey bu nu continuer jóge ci loolu ñëw ci mbër moo xam ne ni moom xëy na tey di wax muy Cheikh Ngiraan mi nga xam ne mbooloo la nekkoon xam le na ne daal fi mu nekk ni moom quitté na fa nga xam ne ni moom moo di Pikine mbooloo waaye terewul nag ñëw na ci Pikine mbooloo ga nga xam ne daal lam fa jot def ak jaar-jaar yam fa am la ko commencé ci quatre-vingt mille francs yi nga xam ne fayeku na ko fa ba ci ay millions yoo xam ne encaissé na ko fa loolu lépp Cheikh Ngiraan xëy na tey ñëw di ci wax ñëw na tamit ci digganteem ak ki nga xam ne ni moo doon Papa Sow combat ba nga xam ne ni daal jàpp na la ko ko xañ bokk na ci ay jafe-jafey recours waaye daa jàpp ne booba combat moom ndam daal la ca jëlee ndam la mu mujj am tamit ci diggante ma mut ja ñëw na ca ci atum 2015 moom Cheikh Ngiraan loolu tamit mu ngi cay wax tamit na daal fi mu nekk nii moom ba tey mu ngi ci dëkk bi daal ne ci ay yëngu bokk na ci wàllum njënd ak njaay ak wàllum élevage boo demee ca marché Zeng daal ne na fa la nekk daal nekk ci wàllum yëngu-yëngu ak njënd ak yu mel ne ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi di sunu làmb beneen mbër boo xam ne ni moom itam gëjës na koo gis ci làmb ji ba mu gëjee am ndam daal wala combat mu mujj boog yàgg na muy bris li mi ñu doon wooyee la karatéka de fas ñu mel ni ki nag yëglikaay bi xëy na tey ñëwal ñu ci moom ak 19 victoire ya nga xam ne jot na koo dajale ci palmarèsam ak 5 défaites ya nga xam ne am na ko sunu làmb moo xëy tey ñëw andil ñu ku mel ni ki noonu muy bris ba nga xam ne ni écrit Fass la nekkoon ba tey bu nu continuer dem fa nga xam ne moo di ci record record moom bombardier lañ fay fekk la nga xam ne sumb na ko muy combat MMA bi nga xam ne nii daal le 20 mars bii nu jëm daal la ko fas yéenee jongante diggante ma ka nga xam ne nii moom moo di ka nga xam ne moom moo di Poudziane mu mel ne ki nag combat la boo xam ne daal boo boo xoolee seeni palmarès daal yëglikaay bi jàpp na ne bu ñu maasee ci at tamit day palmarès moom bokkle wuñ ko ndax nag soree nañu lool lool ndax ka nga xam ne nii moom moom la Bombardier war a jàmmaar lool la mu am ci ay combat ki ndam na lu toll ci 20 komba boo xoolee da koo jot jongante te Bombardier ñetti combat rek la jot a am mu mel ni ki nag boo xoolee ñoom ñaar presque ñoo maase ndax nag yëglikaay bi ñëw na tey ci ka nga xam ne ni moom la bombar war a jàmmaar lool mu mel ni ki moom mu nga juddu le 7 février 1977 moom ma nga ne moom la Bombardier war a jàkkaar lool waaye nag Bombardier dem ga nga xam ne fas na ko yéene dem ca Pologne moom du fa wéet ndax xam ne nañ na daal boo sàgganee ñaar nit may nañ ko ko ngir mu fas ko yéene yóbbaale bokk na ci entraîneur bi nga xam ne nii moom moo di Ligue Etienne ak xaritam ba nga xam ne mooy bras droit am di Moussa mu mel dégg moom Bombardier fi mu nekk nii mu nga ci am waaj fas yéene dem fa nga xam ne nii nag moom moo di ca Pologne ngir fas yéene nag jàmmarloo ji ak waaj yi nga xam ne nii daal ne nañ boo xoolee tabb nañ ko juróomi yoon ci àddina bi mu nit ki gën a foore cay at yoo xam ne daal yu mu wane boppam la ci dooleem ak itam bëri doole lool lool muy loo xam ne ni daal lu nara a metti la waaye lu mu metti metti ñun du tere daal danañu ñaanal ki nu bokkalum réew muy Bombardier yàlla na ko ca yàlla may ndam lu sedd guy guy guy foofa ca Pologne gomis kii ah attention Jackson mu nekkoon nag revue des titres Babacar ñu daal di ñëw ak ñoom nag ci journal suñu làmb ñu daal di xëyee seen xët bu njëkk combat Lac de Guiers 2 ak Eumeu seen ñoom daal la ñuy sàkku fi mu nekk nii rek mooy ñu complété leen li nga xam ne moo di seen avance. waaw loolu suñu làmb xëy tey indi di mu mel ni ñaari camp mbir yi daal avance yi la ñu bëgg ñu complété leen ko. Mm-hmm. ah xëy na comme combat bi fan yëpp yaa ngi dégg ñu naan 4 avril lañ ko fas yéene tëgg yu mel ni ki noonu mm-hmm. xëy na moo tax ñu bëgg jël li nga xam ne nii moom mooy desiti avance yi pour gën a mën a entraîné wu gën a mën a préparé wu mm-hmm. parce que làmb ju toll noonu ak mbëri toll yi ku ne xam ne ne ñoom seeni combat li ciy dem si xaalis dafay bëri xam naa kon loolu moo tax tey ñu xëy di waxee noonu wala boog yëglikaay bi xëy tey indi ñu xibaar bu mel ni ki noonu te muy dëgg waaye ki nga mm. xam ne rek moo tëgg boobu les combats di Gaston Mbengue mm-hmm. moom daal dina xam ne rek dina leen ko complétel la daloon la ko daloon ca Gris Bordeaux lay bañ rek mu dalaat ko ci ñaari mbir dina mm-hmm, def nangam la ci kaw état voilà mm-hmm. maanaam si l' état donne le feu vert bu joxee ndigal mu door a mën a complété Gaston moom bañu la complété waaye nag ci kaw complété daal day tombeek état bi xëy na joxe ndigal ci ñoom ñu tëgg làmb ñu mën a xam kañ lañuy tëgg làmb ak ni ñu koy tëgg et wax na dëgg parce que tamit mënoo jël ay millions di ko joxe di ko joxe rek te itam xamoo foo jëm loolu tamit wax dëgg yàlla xel nanguwu ko mhm. bari xaalis tamit tolluwu ni mhm. yaa ngi dégg kon defe naa lu ci mën a doon itam mhm. mbër yi même bu ñu soxlaa seen ay euh, euh, euh, seen ay ñu jox leen resta ay avance yu mel ni ki noonu promoteur bi leen ko war a jox tamit xam naa ne bañu leen ko jox parce que waxal na ko boppam moom Gaston mais nee na li muy bañ li ko daloon ci giri lay bañ mu dalaat ko maanaam joxe ba pare après mu indi ay problème am ci jàppal bàyyi te loolu tamit yéene wuñ ko kenn yéen arrangé wul mbër mi arrangé wul promoteur bi kon fi nekk nii daal kenn moom moo gàddu jëggal guyam war a létt nit ñi wala mu firi leen mooy état du Sénégal moom daal moom moo ñu war a jox solution ci làmb ji mm-hmm. ñu xam ñun ban tànk la ñuy boog ban la taxawee mm-hmm. mais yaakaaroon tamit mbëri li tax ñuy laaj seen Euh, loo des ci ci xaalis bi nekkul ne dañoo bëgg a préparer seen bopp ndaxte combat nag na fi mu nekk nii fi phase bi ñu toll la parce que ku ne xam na ne xam nga tamit ñu génn wax. Mhm. wax nañ ah, mhm. xoolee mois de février lañ ne mars avril yaa ngi dégg presque mën nga ne un mois quelques mhm. naa ne dafay la jaadu ñoom tamit bu leen leeral dañ cee nar bëree ah, ñu laaj la nga xam ne moom mooy seen desitu xaalis waaye est-ce que danañ ci bëri loolu tamit leerul promoteur bi loolu moo tax xay na mu daa wax mais leeru ko ndax ñooñu dinañ ci bëri wala déet ko leerul nag moom moom tamit la muy bañ mooy jël ay millions joxe ko ci loo ne ni daal leer na ko ni lii du ca ko neex loolu tamit du lu wóor te muy dëgg mm-hmm. arène bi tijjeegul ba léegi yéex xam ne na ko rek ki nga xam ne moo di jumbo di promoteur moom itam daal dina attaque ki nga xam ne moo di Matar Ba waaw man daal li ma xam daal fi mu nekk nii moom ñoom ñëpp ñii di wax ñëpp li olof di wax rek ku bëgg a day yokk dañoo sonn parce que dañoo ñëw ci làmb mhm. muy suñu sport national ñu ñëw pour gën ko yokk doole parce que Jimbo mi ñu li ne promoteur bu bees la ci làmb ren la si ñëw taxawal ay combat amul yéene tëgg ay journée lu toll ci dix ah ñu demee ba heure bi nag affaire yi di traîner amuñu benn solution xëy na moo tax nag mu dem ba sës mu wax parce que tamit wax dëgg yàlla Matar Ba de du ma day dafa bañ làmb waaye daal xam naa ne war nañu gën a war na gën a taxawul làmb moo ko waa ministère ci kanamu état du Sénégal pour ñu xam làmb ji naka lañ ci war a mën a duggee parce que tamit fi mu nekk nii saison bi moom bu bëggee dëgg-dëgg amee mu ngi jeex. mi ngi jeex moom mi ngi jeex taxam xam leen ñu dugg ci weeru koor bi. ah bien sûr léegi saison bi jeex. dëgg la ñu daal di dem ak ki nga xam ne rek moo di Bruce Lee moom nag euh, dernière victoire am mu am ko rek en 2014 li ci topp ay défaite la. waaw muy mbër boo xam ne vraiment bi mu commencé carrière am boo xoolee palmarès bi am sax dafa riche macha allah 19 mm-hmm. victoire 5 défaite loolu bëriwul mbër bu ko am mais ci dernière sortie bi ñu mujjee gis moom Bruce Lee maanaam daal du Bruce Lee bañ daan gis lañ daan gisati Bruce Lee boo xam ne daan ñëw. maanaam doo gis ci moom yaramam daray poids mu ñëw technicité bëri foo ko laal ci yaramam mu bëri ñu dem ba gisatuñu woon loolu ak poids parce que tamit am na mbër yoo xam ne bu ñu yoree yenn poids yi leer ne dootuñu moom seen pour def li ñu war a def mais moom defe naa ne gën koo xam nuy bëri wala dàq ko bëri moom biris lu jafe la mais nag dafa am yenn poids yoo xam ne bu ñu ko moom ak Ahmed Deme ak yenn combat ak yooyu ak ko fa rey na ci poids bu bëri parce que du poids waaye bëri rek rek rek ah non boo seetaanee biris li moom mbër wër mbër jàpp na ko fu ne mu daan ko waaw buñ jógee foofu ñu dem seeti ki nga xam ne moo di Cheikh Ngiraan moom nag xam ne na ne bu baax a baax a baax a baax comme ni mu ko waxee rek fayeeku na fa 80 millions ba fayeeku fa ay daal daa dem ba xëy na xam ne moom ak kii watul moo tax mu quitté waaye loo ci mën a dégg daal bëri la boo xam ne tamit bi mu ci tolloo waree na boppam na bu baax a baax. te muy dëgg yaakaaroon dafa gisatul boppam. waaw loolu day am waaw loolu day am. te muy dëgg ba tey nag Ameth Konaté ci ñàkk tijjee làmb boobu noonu itam daal dina ci daal àddu rek lam xam le moo di dinañ i ñu fàttali ne entraîneur la ci écrit kaay baax ci Rufisque. Mhm. ah loo ci mën a dégg daal fi mu nekk nii moom. xaw wàcc ci mbedd bi parce que moom it li mu wax jar na bàyyi xel. Mhm. parce que gis na ne promoteurs yi ñu ngi dem vers Gambie. Mhm. te itam di fa organiser wu ah loolu nag bu yàggee làmb ji fii Sénégal fii dee te boo xoolee promoteur yu bëri actuellement ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi lijjanti Gàmbi ñenn ñi jot nañ fa organiser am na ñoom ne ñuy jàpp nañ fa ay date te defe naa loolu lépp bokk na ci loo xam ne war nañu man a xool nuñ ko organiser donte nag dañoo ne ci jamono joo xam ne tamit lu jamono joo xam ne junu gënal la ndax jamonoy mbas la ñu ne ami jamonoy mbas nag moo ñëw li xal la jël ñu licc waaye dama yaakaar ne état bi tey li ko Sénégalais di interpeller rawatina waa ahlu làmb mooy fi mu jaarale waa basket bi jaarale fa waa football baak mm-hmm. yeneen sport yeneen discipline ñu yëngatu pourquoi pas duñu jéem a jaarale foofu làmb ji boobu ba tey mais boobu ba tey ñu ngi waaj di waaj di waaj di waaj di waaj rek mm-hmm. xamuñu waaw comme euh, ni nga ko waxee rek corona bi moo waral loolu tamit ñu ci bañ ay regroupement kii bu ñu wàccee ci li nga xam ne moo di dans les rues rek manifester seen mécontentement nga yaakaar ne du indi problème violence. Ah. te xam nga nag bëri dañoo am doole loolu kay kenn lépp li ko mën a euh, régler daal mooy nguur gi. Mm-hmm. ñi ñu dénk sunu sunu sunu kàddu. Mm-hmm. muy nguur gi Euh, ñu koy commencé ci ki jiite réew mi président Macky Sall ñoom ñoo mën a regle lii parce que tamit mënuñu toog léttuñu gaañi firiwuñu leen faw ñu ne leen dañuy wiklo wiklo bi jàpp nañ date bi date lay commencé wala du ñu wiklo nii lay demee bu ko defee gars yi xam fu ñuy aw mais noppi te karal gi daa métti amee métti na te muy mhm. dëgg métti na trop voilà bu ñu jógee foofu ñu daal di dem ci journal record fekk fa la nga xam ne rek moo di MMA ñu daal di ñëw ñun ci combat B52 ak ki nga xam ne moo di Poudziane Poudziane mu doon nag écart boo xam ne seen palmarès am na écart bu rëy daal. waaw bu yaatu parce que ah. vingt combats la kooku def kiy def trois. Mhm. kon defe naa polonais bi la mu rawee sénégalais bi bëri na trop trop trop trop mais nag loolu ça ne va pas ne ah da koy gagné parce que Bombardier itam defe naa a gagné di doomu Angleterre ca Angleterre ba foofu bu baax a baax terewul bañ ca demee da ko gagné mhm. li ci am solo daal moom moom Bombardier miy dem ah mu apte pour mën a def li muy def te defe naa ne loolu am na moo tax mu mën a signé contrat bu mel noonu mhm. ñu koy ñaan ñu ko ci ñaanal yàlla rek ndam mhm. te itam xare moom wala boog combat bokk na ci li tax ñu ne combattant pire nga nga gañe koo xam ne dañ naan kii ah raw na la lu bare bare bare bari comme waa ji moo ko raw ci côté palmarès bu baax a baax a baax mm-hmm. ah ñu ngi ñaan yàlla rek Bombardier gañe ko la sursis gañe ndam loo xam ne ni lu leer nañ lay doon amin sotti ci def ci la mm-hmm. ci biir dëkk bi la ñu bien sûr may ndam amin amin <laughs> voilà Babacar xibaar yi jaafa ndar képp lan ngay euh, tàggoo waa sant yàlla rek di ñaan jàmm Sénégal di ko ñaanal bépp doomu Sénégal di ko ñaanal àddina bi yépp tamit parce que jàmm comme ni ñuy wax rek si la lépp xaj ami di la ko ñaanal di ko ñaanal gomis bi ne ci film bi yàggamaar bi ne ci montage bi ak groupe Equivox bi yépp ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko saaxu si ñoom rawatina kilifa gu mag mag gi nag moom mm-hmm. ñu jóg ci di ko ñaanal di ko wax rek effort yi muy def ngir Equivox nekk au devant de la scène yàlla na ko yàlla def ba mu réussir ko yàlla bu mu ci am lenn lu muy rëccu daal parce tamit vraiment mu ngi def ay effort yu nekk pour liggéey bi gën a mën a dox agent yi fi nekk gën a mën a nekk si jàmm te defe naa loolu lu jara wax la lu jara saluer la te itam kon ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla na réussir mission ba nga xam ne nii moom la sumb ak képp koo xam ne yaa ngi ci biir kër gi di nuyu suñu soppe yëpp ak suñu fans yi suñu am di jàmm yi di leen ñaanal jàmm rek fu ñu mën a nekk di balu ñëpp ak di ñaan jàmm Sénégal voilà mbokku téléspectateurs yi doon teewlu xibaar yi ci Equivox TV fi la ñuy daal di yem ak yéen rek tey di leen jox dig daje rek ëllëg incha allah